because in music business we are not together li moo tax sax Uncle Sam gina am dole di impose lumbuga on the youths wala event promoters yi wala ak wala artists si boppam problem bi la la job amut nduy stress neen dem Legi, léegi benen option bi is nduy nekka neen promoters benen option bi is nduy nekka neen ay artistes pour mun entertain nit yi am si dara ñeneen pour mun ay event yu ne Fancy si ñëw déglu bég si fay seen xaalis and ñooñu dem jël loolu tax bu ndaw bu noonu fay gars fay si lu ndaw and then téye seen wéccet bi topolo seen sol léegi now you are seen, ne it is so mi ngee successful nga jóg rek impose something else pour def comme gën heavy on the masses without adding any value yourself yaa ngi impose loo xam ne it's gonna be heavy but nekkuloo di di yokka benn value foofu noonu wala da ngeen bëgg a use si gën a stress what is going on here ok bañu tax bi kon ma ko waxee de waaye sooy tax nit ki fekkal ne you are giving back wala tax return fekk gars yi ñu ngi koo gis fu ga seen xaalis di dugga ñu ngi koo gis yes because si internet internet side bi yaa ngi fayaloon tuy tax and nekkul di cappa like stage you provide wala ground boo defar pour youths yi dafa def wala sound system boo as you see the def They can use the def on stuff but nothing One God bless people. You know what time it is. I'm getting Nakala. Well, Gambia Revenue Authority imposes a stricter tax on event promoters and artists Jang Bedula alright fii dina uba du tey gis nañ ne at bii nii events ñi ngi successful alright but hear me out hear me out at gis nañ events yaa ngi successful at bii gis nañ ne suñ brothers yi seen events yi are successful and ñi ngi oote nit yi ñu ngi génn si soo gisee loolu mu am guys yi seen liggéey are rafet wala they did a hard work and Lola fancy appreciate guy yi si support their events alright Uncle Sam ñëw mu ne naka dafa tax guy heavier again I'm gonna ask you these questions alright number one lan la government bi defar industry one number two lan la government bi defar fi benn artiste ida jëndal ko kër jox ko moto wala bindal ko studio amut alright léegi you see ñi ngay try pour deewoo liggéey at bi yëpp liggéey at bi yëpp pour seen album invest seen baxa pour am sponsor sax from the government sax is a problem alright léegi ñu liggéey hustle full year bi yëpp sleepless nights and stop léegi seen benn event bu gaay dee am si at boobu yëpp seen benn mega event boobu foofu la gaay war a fee seen bill si and everything si benn at buy ñëw yëpp Uncle Sam jóg rek kon nga seen event si fees na léegi rek ngeen ne da ngeen a yokka tax bi ok kenn bañut yokka tax waaye soo yokka tax fekka danga defar dara youth wala adisi wala event promoter si wala promoter si seen feka fekk danga defar gay something ida nga Bill park bo xam especially for events especially for events nga xam ne youth si 100 percent ku nekk dafa ñëw mu defa event sam and nga charge gaay ben 15 wala 10 percent phone bo noonu mu mun delu ci government bi Eh, loolu yaa ngee give back to the community loolu government bi mu ngee jox back to the youth sa si boppam mu nekk ñu nekk si industry side bi alright but fii stage sax government bi provide ko ground boo xam ne sax pour ñu def si event yi sax studio bu correct sax studio boo xam ne dañ ko bi bind comme like pour artistes yi rek pour industrie yi naa dox sax amut léegi nduy ni ngee deewoo pour nekk ay artiste génnee songs yoo xam ne fans yi like xam nga ngeen di ngeen a yokk a tax di gaay seen kaw. oh you just finding a new way to be reaching off from these youths xanaa da ngeen ko youth si torox continuously because ñu nekk fii nekkuñu ay artiste ñu bari ñu ngi dem back way and the death rate is really high. ok léegi promoters yi bàyyi leen seen xel ngeen xool Gambia right now promoters yi artiste Then over body, you know what Holland Meholnade job opportunity is very very very very very scarce like it's very very small job opportunity si bir dëkk bi job ko life is very very very very very small so everybody wanna be heard Then dem gonna artist génne ay way yu sound am followers yu bari am Bahad Nelson family take care of their bills and they are feeling like here is the gateway. Others they are feeling like okay we gonna go to back way. and rich from Life from there as a formula. Legi promoters yi hol len nyaata do yi ndaw ñoo nekk kan- di nekk kan promoters right now gen hol ñoom tamit dem bëgg organize ay event fofu leen fokk ne mooy gateway bi and because amun job na promote music bi si entertainment side gaa mun a am dara organise ay event am lu ndaw séedoo ko ak artist yi soo yéen tam ngeen ñëwaat ngeen ne dangeen a gën a tax guy heavier without you giving back to the community provide leen stage provide leen provide leen stage boo xam ne youth si ko moom pour gars yi def seen own shows provide leen a sound system boo xam ne nduy suñ ootee rek gars yi dañuy joxe like 15 percent and then gars yu sound boobu su paree Definitely, no one with heavy tax trying to reach out from these people You have ne they gonna make this annual concert or events léegi they gonna give back to their hoods develop for dara for seen hoods because this is always their aim the street must eat now you are di yokka tax you are levying heavy tax on them how do you want this used to survive. Hamnakom siyage mom moilol. Now, uh, others are even thinking like, okay, now you want the youth, dengan buka youth sih kena frustrated, wala hama dengan buka youth sih kena tough, wala dengan buka youth sih kena stress. What is going on here? Okay, banyak tax bekon mau kau head. Why? Soy tax nitki. fekkal ne you are giving back wala tax return fekk gars yi ñu ngi koo gis fu seen xaalis di ñu ngi koo gis yes because si internet internet side bi yaa ngee fayaloon tii tax and nekkul di cappa like stage yoo provide wala ground boo defar pour youths yi dafa def seen show yi wala sound system boo asi youths yi dafa def seen di ko use di def seen own stuff but nothing is happening and next minute nga ne da nga naan tax guy heavily alright léegi tax leen artist yu dee ñëw from foreign ñooñu ngay war a gën a tax so that ñun tamit ñu nekk ay dem show yooyu we gonna feel like ne ok artist bi ñëw na fii tax nañ ko and at least we are having some return dara mi ngi des ci dëkk bi sax loolu noonu that point will be very very cool yes nga taba ku fay ticket am saving ajami wala grand am bi mu dem si concert boobu noonu léegi the tax that you levied on those foreign artists si boppam let it be heavy because they pay them really good here they pay them really good now suñ gënee suñ tax yi si foreign artists then we gonna feel like ne okay at least dara am ngay dellu si nguur bi sax si boppam nuy a enjoy and then we ngay dellu si gaay at least nidi yeah that will be more comfortable sa si buwan waaye struggle full year promote promote do duga fii duga fële yow nga jóg rek like Uncle Sam ñëw rek me ok bam ko nga gis na December bi soo yi ñu jaar rek bam ok we gonna impose a heavier tax and this and if key follow the protocol of the tax this and this and this they gonna face the law I'm thinking ne oncle Sam dafa bëgg ndoy suffer ولا قاعد انا frustrated because in the memory full as if you feel something come up again now zolang so you kay tax bi ngeen def ko mu a heavy then take yi dafa am pour joke take yi dafa war a dafa war a yokk tickets yi gars yi dañ koo yokka which means the masses ñooy gën a sonawaat it always bounce back to the masses yeah but soo gisee Oncle Sam am doole saa di def lii saa di di jékki-jékki asi benn statement mu ne dafa impose a heavy attacks on the event promoters ak artistes si boppam ne is that ne industry bi dafa ndaw and xool yi nekkuñ benn saa ñëpp a divide so pour rule dafa over easy pour ongul Sam ñëw def defam dafa over easy industry bi people are not one Oncle Sam dafa ñëw lu ko neexee mu wax lu ko neexee mu def lu ko neexee because we are not one moo tax sax lii yëpp di happen waaye su fekkoon ñun benn boppaleen ah industrie benn boppaleen dinañ taxaw nu challenge Uncle Sam lu nekk di def nii yes because si music business yi we are not together lii moo tax sax Uncle Sam gën a am doole di impose lu mu bugga on the youths wala event promoters yi wala ak wala artistes yi si boppam amuñ understanding ak togetherness this is something loo xam ne ñu affect so literally Uncle Sam's gonna mu ñëw mu impose anything so what ndaw to la jeex if we stick together ñu jóg ñu how we stand for ourselves yeah obviously power belongs to the people they gonna notice that power belongs to the people Li I years la war na happen years back but nothing hatred baa ngi bari ku nekkam separate bopam. ku nekkam ngay isolate boppam feel na okay like yeah ni ani ah, ani ah, ani. Ah, let me do my things in my own way all right And then, yeah, ñun bu yagale won nañu together. Understand? ñun bu yagale won nañu together. And challenge the government for entertainment budget and venue. But now, here they are trying to rob us now. Here they are trying to rob us pour ñu gëna frustrate. And li dafa bounce back si masses yi ñom ñoy gëna sonn waat. Because so bu gëdem party fokk nga gëné grand bu mu sëk té yalla xamna sa one week sa ne ko di am grand. Foy lokati you're gonna die frustrated. Now they are trying to rob us with the little. You guys, with the little artists they for would be Some are even saying Gambia will never be better, and this is very discouraging. How many other youths ñoo fi nekk yee suñ génnee dëkk bi one. Come comme new ñëwaat fi. yeah this jungle dafa over tough so this is what I think and it's really not nice we really have to come together New waa industry bi ñoo xam influencer yi la promoters yi la DJs yi la we all have to come together definitely. nii you build something for ourselves if Uncle Sam is not willing to do it for us let's do it for ourselves ale for the first one, yeah this is what I'm thinking what are your thoughts on this because this is not cool it's really not cool Problem, bi la job amut ndoy stress ne dem baagwe legi beneen option bi is ndoyi nekkaleen promoters beneen option bi is yi nekkaleen ay artistes pour mun a entertain nit yi am si dara ñeneen pour mun a organiser ay event yu ne fan si ñëw déglu bég si fay seen xaalis and ñu dem jël loolu tax bu ndaw bu noonu fay gars yi fay si lu ndaw and then téye seen wéccet bi toppaloo seen sol léegi now you are seeing ne it is so mi ngee successful nga jóg rek impose something else ah. Put that come gonna heavy on the masses without adding any value yourself. yaa ngi impose yoo xam gonna be heavy but nekkuloo di di yokk value for fun. And déglu coins lu mu nekk di si mbaari si si tax and coins Simbari is really this nice guy very smart mi ngi send message in a respectful manner and entertaining manner as well this is very nice Listen. Mère Kumba sa boy yi waarooti nen suma ci kundi naka ne Mère Kumba tey ñu ngi waaru waaru yoo xam ne ñu ngi waaru waaru yoo xam ne ni Mère Kumba waal ma man sa kundaane bala ñoo yaatal tali ñu yaatal employment bi bala ñoo yaatal tali yi ñu yaatal salari yi bala ñoo yaatal tali yi ñu dugal seen loxo si luwaas yi suma diggante yàlla maire Kumba waxal ma man saku daandi am nen hundred plus problems bala ñoo laal laas problème bi yaatul tali mooy suñ laas problème <laughs> suma jii ko diit maire Kumba waxal ma gars yi tegee si yaatul tali bi si loo neen make tamit ñu teg compensation bi si loo maire Kumba buñ fàtte ñu gars di génnee si tali yi fifteen years twenty years thirty years gars yi ngay fay tax maire Kumba ana tax return diggante yàlla maire Kumba waxal ma gars ne neen teg compensation bi si loo suma ci kunti ma ko ne demati neen terereel all right fii laa doon tax return tax return all right nit ki ngee fee feeku tax waaye nekkul di gis any return wala any value boo xam ne dina ko impress this is something else and this is not nice yaa ngee feeloon ki tax but nekkul di cappa any value when Wanagari provide. I don't know whether you see seeing the point. So what are your thoughts on this? Because lawa.